برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عين البركة عين اليمن عين السعادة عين الخير والنور والسر صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yu tedd yi ci àdduna bi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel dama yëkkati sama kàddu ngir laaj yu bari yoo xam ne mbokki jullit ñi ak mbokki taalibe yi ñu ma koy laaj ci xew-xew boo xam ne xew na ba tey génnul ci balaa bii lëmbe àdduna ñuy ñaan yàlla yàlla mi ko tege yàlla na ko teggi te moom rek moo ko man yàlla na ko teggi nag ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi teggi koy ci barke alquran léegi loolu mooy benn kawar bu ñuy wax ci ne dafa nekk ci kaamili alquran yi man nag wax dëgg yàlla li tax may wax nekkul ne damay défendre ne kawar bi dëgg la walla du dëgg déedéet waaye li tax may wax mooy ne ñi ko doon dëggal ci rafet njort bëgg naa kenn bañ leen a yedd ak kenn bañ leen a jam ñi ko weddi it ñoo moom seen ngëm kenn du leen forcé ne nañ ko gëm waaye nag ci biir weddi gi daa am ñoo xam ne seen weddi ya dañ caa dugal kàddu yu ëpp ndax buñ demee ba ne kawarug yonentu yàlla muhammad mënta jëriñ dara loolu daal jàpp naa ne jullit bi gën a néew ngëm yàlla sañu ta wax loolu waxuma ku ñu naan borom xam-xam nga waxuma ku ñu naan daaya nga kuy oote ci yàlla ne yaay taxawal diine bu boobaa na la wér ne réer nga wala seytaane jekku na la bu dee wér na ne loolu boroom wax na ko ci loolu nag laa bëgg a wax euh, li ma ciy njëkk a wax it mooy ne li ma ne ñi ko gëm bu leen kenn yedd dañ koo teg rek ci min baabi xusni zann ci buntu rafet njort te loolu ñun sunu madrasa متصوف لولو موي فوندما بيكو تباخ رافين جورت كي دي سيدي عبا سيدي محمد الصغير بن مبوجا تشيتي دا فاي واخ تيرم بو واخ سريه الحق والانتصار من فالفقراء بنوا على التصديق والفقهاء بنوا على التحقيق فحسن ظن عند الأولين أصل وعكسه للآخرين mu ne dafa am ñu ñuy tuddee alfuqara mooy suufiyanke am ñu ñuy tuddee alfuqara mooy boroom xam-xam yi nga xam ne nekkuñu ay suufi mais ay jullit yu baax la mu ne ñoom suufiyanke yi daal seen ngir seen yoon dañ koo tabax ci baasu rafet njort rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci jaami yàlla loolu la yonent bi wax ci xadis ne xaslataani laysa fawqahuma shay'un min al xayri xusnu zanni billah wa xusnu zanni bi ibadillah ñaari jikkoo ngi nii dara féetewu ko kaw ci yiw rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci jaami yàlla yeneen ñaari jikkoo ngi nii dara yéesu leen ci mbon ñaaw njortu ci yàlla ak ñaaw njortu ci jaam yàlla moo tax suufi toujours bu mbir ñëwee rek da ciy rafet njort te néew na nag aj rafet njort njortoom lu rafet loola nax ko donte sax ay nax la mais yàlla dana ko fekk ci njortoom lu rafet ba jëriñ ko ca Seydina Omar ibnul Xataab dafa bari woon ay jaam mais biñ xamee ne Seydina Omar dafa bëgg julli jaam yi ku bëgg a gore rek dangay ngay daal balaa waxtu waa jot nga jàpp jiitu Seydina Omar ci jàkka ji bu la fa gisee ñaari yoon ñetti yoon rek ne la goreel naa la ñu ne ko ah gis nga sa jaam yii dañ lay nax dong mais yàlla tolluwu leen noonu jàlla jàkk tolluwu leen noonu dañoo bëgg a gore donc mu ne man xadaana fillahi in xadaana la mu ne ñun Umar day ku ñu nax ci yàlla rek ñu naxu ca nangu nañu ku ñu nax ci yàlla ndax mbir boo ko gëmee te muy dëkk ci yow te mënuñ la caa nax rek gëm nga des na looloo waral xoolal ku ñu ne la dafa am ku gént gis yenent bi xoolal lim la wax de waxul gis Jean waxul a gis Paul waxul a gis seytaane gént naa gis yenent yàlla Muhammad mu ne ma demal ci kaamil bi bàpp baqara boo ko ubbee page par page da nga ci gis kawar riwaayaat yi wute na ñii ne kawar yenent bi la ñii ne kawar rek kawar boobu dana jëriñ nangam dana jëriñ nangam kooka ne man de def naa ko keneen ne def naa ko keneen ne def naa ko waaw ñu wax la ko yow ngay ab jullit yow seetatoo ki wax mais li ñu la wax nga seet yonent bi lañ tudd alquran lañ tudd kon foofa ku tuumaal karafen njortu ba def loola ne dafay shirk dafay def li dafay def la deug deug setlu wut limu wax lol bokul ak shirk koga barke biñu bi ci yonentu yalla muhammad barke bi nek ci alquran mom la gem ba tax mu def la mu def nañu rafet njort ca ka def ak ka gem baña dal ci koom di tumal ci shirk surtout ñi def nak amna ci ño xamne ñom dara manta tax bañ bokal yalla ak dara ndax lay tomb bokale bi budde ko ne ci sen xol ndax ñom wax rek mo sax ci ñom kon deug dëgg ñooñu tumal len bokale yalla nit man nga weddi dara mais ca bir weddi ga nga leral rek ne gëwma ndak ndax joxe say lay ku ne am nga ci droit ndax gëm ak weddi ñofi ne ndax ba ci alquran ji ñuy wax sax am na ño xamne ne ba tey gëmuñu ne yalla ko wax dañu gëm ne yonent yalla muhammad moko ko rek wax Al alquran ji ci bokku jinne alquran ji kon gëm ak weddi ñoo fi yàgg nañ mais nag ci biir weddi gi na rafet mais nekkul nag nga di ci profité pour xas ay jullit pour tuutal leen pour doyadal leen amul benn jullit buy am intention di jóg di bokkaale jàll yàlla kooku benn jullit du ko def kon ñooñu gëm mbir mi ngir rafetum njort nañu leen bàyyi ci seen rafet njort ñi nga xam ne dañu def ixtiyaat dañu moytu ñoom it nañ leen bàyyi ak seen gis lii moo war a tax lislaam bi am doole lii moo war a mën a tax jullit ñi nekk ci jàmm ndax jullit ñëpp du ñu mën a bokk benn gis-gis ci benn masala saxaaba yi sax dañ daan wuute mais wuute bi na rafet bu mu jur noonoo bu jur xastante bu bu jur tàqalikoo wuute doole la mais nag tàqalikoo baaxut day damm doole dafay dindi ndam te bu dee ci buntu ñi ne gis nañ yonent bi jént nañ gis ko boo demee ci almufhim muy sharha imam muslim imaamul qurtubi moo ko def moo defar téere boobu almufhim fi sharhi sahihi muslim ci baabu na bi ci buntu gis yonentu yàlla muhammad ci nelaw wax na fane ne man raani fi lmanaami faqad raani fa inna cheytaana laa yatamathalu bii képp ku gént gis ma ci nelaw man yonent bi man nga gis ndax cheytaane du ma misaal kooku hadis la beneen riwaaya mu ne fa inna cheytaana laa yambagi an yatashabbaha bii mu ne cheytaane du yell mukk ba mu may niru niru lu beneen riwaaya laa yambagi an yatamathala fi suratihi mu ne du feeñu keneen ci sama melo hadis yooyu yaatu nañu boroom xam-xam yi wax nañ ci wax yu yaato yaato yaatoo yaatoo waaye euh, kii nga xamante ne ni mooy imaamul Qurtubi bi muy shara hadis boobu indi na fa ay xissa ba mu indil boppam moom yoo xam ne dal na ko ay yoon ci ay gént yu muy gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu muy wax ak yonent bi noona mu ko gisee ca gënt ga noonu la koy gisee yaqazatan ci lu ay nelaw te du sax soxla taaw mu nettali ci yu gudd yoo xam ne euh, daanaka euh, bu ma ko jëlee dafay tax sunu waxtaan bi yàgg mais pour walla rek ne kon gént ne gis naa yonentu bi léegi foofu xanaa kay kane gént naa ndax wér na ne gént na wala géntul foofu mooy problème bi mais am maa ko képp ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo gis ci moom ak lu la wax rek xamal ne loola mbirum seytaane bokku ci te bi ñu waxee saaru baqara lañ wax waxu alquran ji yëpp mais li gën a siiw mooy ne dañ ne da nga ubbi ca saaru baqara danañ rafet njort ci baqara ndax si hadis abi hurayrata daf ne inna cheytaana yafirru min al bayt allazi allazi tuqra'u fihi al baqara muslim si na abi hurayrata mu ne cheytaane dafay daw néeg boo xam ne ñu ngi fay jàng saaru baqara yonent bi moo ko wax kon ba tey kawar bi fañ ñu koy wër loolu du palaasu de fa gaa yi koy wër ci biir saaru baqara kon léegi suratul baqara xadis dikkaat na ci yonentu ne suratul baqara fiha ayatun hiya sayidatu ayil quran saaru baqara aaya nga boo xam ne mooy sangi aaya alquran yi laa tuqra'u fi baytin wa fihi shaytaanun illa xaraja minhu ayatul kursi rawahu alxaakim wa saxahahu baqara aaya nga boo xam ne mooy sangi aaya alquran yi teesu ko jàng cib néeg fekk seytaane nga fa lu dul ne seytaane sa dana génn ca néeg ba mu ne aaya boobu mooy aayatul kursi dégg nga xadiisu sahlu bnu saadin sax moom daf ne yonentu daf ne man qaraa fi baytihi laylan lam yadxuli sheytaanu fi baytihi thalaatha layaalin mu ne ku jàng saaru baqara guddi ci néegam mbaa ci këram këram nga dana teg tegale ñetti fan yoo xam ne seytaane du fa tabbi ñetti guddi wa man qaraaha nahaaran lam yadxuli sheytaanu baytahu thalathata ayaamin mu ne ku ko jàng ci këram bëccëg danga nga tegle ñetti fan yoo xam ne seytaane du dugg sa biir kër kon xam nga fa ñu tudd bu fekkente ne du dëgg maanaa euh, lu ñu protéger la muy alquran muy yonent bi surtout muy saaru baqara bi nga xam ne yonent bi wax na ci lii kon ma ne euh, nit boo dee weddi dara walla ngay corriger nit na ko corriger ci façon bu rafet bu nooy waaye bul gaaw rek euh, ku rafet njort ci dara euh, ndax bu wéroon ne yonentu moo wax loolu ci gént rek bu boobaa kooku amatut werante ndax yonent bi garanti na gis ko ci gént te des na ko gis kon loolu moom mooy li ma doon wax ci li aju ci loolu wa amaa nag bu dee li aju ci ki nga xam ne mooy ñi wax ne kawaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallama euh, euh, amul li ma bëgg ñu xam ko rek mooy ñooñu liñ bëgg a weddi mooy baru tabarruk mooy barkeelu lañ bëgg a weddi barkeelu nag dinaa leen wax ne kenn mënu koo weddi ci lislaam kawarug yonent bi dinañ fi ñëw waaye saxaaba yi daanañu barkeelu ci jëmmi yonent bi daanañ barkeelu ci lu jóge ci jëmmi yonent bi yonent bi di dund yonent bi daana leen daana leen daana yëkkati di leen jox ñuy barkeel loolu nag dinaa ci tudd rek tuuti ci ay xadis yoo xam ne yu wér la xare badar yonent bi bi muy defar sàppe yi yor aw yetam romb na ku ñu wax sawaat pun gaziya muy xalifu bani najaar moom taxawul taxawaay bu jub ci sàppe yi dafa gën a dugg yonent bi daal di koy kii ak yatam bi laal ak yatam ci biir ni ko istaqim yaa sawaat sawaat jubal dugal ci sàppe yi mu laal koog yet bi sawaat ne ko aw jaatani yaa rasulallah gaañ nga ma de yow yonent bi ay yonent bi gaañ nga ma de waqad buista bil xaqi wala adli te yàlla ci dëgg ak maandu la la yónni damaa bëgg a fayu yaa ngi dégg yenent bi daal di muri biiram ne ko istaqid yaa sawaat mu ne ko kaay fayu yow sawaat sawaat daal ñëw ba jub biirub yonentu yàlla muhammad daldi di doq yonent bi fóon ko ci ci doq daldi jël gémmiñam ga teg ko ci biiru yonent bi dal di fóon biiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko maa xamalaka ala dalika lan moo la xiirtal ci li nga def mu ne ko yaa rasulallah li li xewkat gis nga ko mooy maa ngi nii ci toolu xare nar a jàkkaarloog noonu yàlla yi ta yaakar na menyibis ñibbi sama kër fi lay dess ma bëgg nak sama der bi mu ak sab der nga xamne bu may genn aduna day fekk sama yaram wi sa yaram la mu jalal lool du barkeelu may laacc ndax lool barkeelu la wala du lu? legi urwata ibnu masud al thaqifi muy sayidu ahli taif moom nettali na ci sulxul xudaybiya bi ko waa Quraysh yónnee ci yonentu yàlla Muhammad ne ko na dem wax moom pour ne ko bum mu dugg màkk ren nanguwuñu muy qissa bu siiw urwat ibnu mas'ud athaqifi la ca am solo mooy mahallu shahid bi bam ñibbee ci waa Quraysh yi ko yónni woon wax na leen ne maanaa dikk naa ca Kisra ca nguuram ga muy buuru Faris dikk naa ca Kaysar ca màggaayam ga waaye gisuma ab buur ci aw nitam ba ba mel ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biiri saxaabaam mu ne gis naa gaa yoo xam ne du ñu bàyyee yonentu bi dara di ko dal yéen waa Quraysh nag na ngeen xool ngeen di def ndax yéen kat mbir mu rëy gaar na leen dégg nga bokk na ca lam nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waa eh, mu ne fa innahu kaana laa yatawaddau wadu'an illa kaadu yaqtatiluuna alayhi yatamassaxuuna bihi wa ida takallamu xafadu aswaatahum indahu wala yuxidduuna annadara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonentu bi sallallahu alayhi bu jàppee ba desal ndesiitu njàppum yonentu bi dañ ciy reyante ku nekk di naan maa ciy nekk naan jox ma des bi mu barkeelu loolu du barkeelu bu saxaaba yi doon def dégg nga yaqtatiluuna alayhi yatamassaxuuna bihi yemul ci ne dañuy jël loola yaa ngi dégg di ko barkeeloo de dane dañ ci reyante daf leen di jaral ñu reyante gi pour jot ci desu yonent bi ba pare dañ koy raayoo bu ñu waxee dañuy suufeel seen baat ci yonent bi kenn ci ñoom du yëkkati kàddoom ci ko kàddu yonent bi te du ñu jël seen i bët ne jàkk rek di ko xool fixé ko seen i bët ngir lan wormaal buñ ko wormaal ak respect buñ ko jox dégg nga am na xadis beneen boo xam ne mu ngi ci Buxaari ak Muslim ñu jële ko ci abi Muusa al-Ash'ari ñu nettali ne nekkoon naa fa yonentu ba fekk yonentu mu nga ji araana diggante Makka ak Madina mu ànd ak Bilaal benn sa benn sàmm dal di ñëw ne yow yonentu yàlla Muhammad dooma jox li ma digoon yonent bi ne ko bégal mu ne ko bëri yi bëri na ci man li nga may naan bégal bégal rek ba kañ yonent bi daal di xool sahabaam boobu di sayidna abi moussa al ashari ak sayidna bilal alxabashi radiallahu anhu mel ni ku xaw a mer mu ne leen a ah, waa ji de delloo na mbégte mi yéen nag nangu leen mbégte mi abshir baatu bégal boobu ma ko wax gàntu na ko waaye yéen bu leen ko gàntu kaay leen jël mbégte mi qaala qabil naa ñoom ñaar abu moussa al ashari ak sayidna bilaal ñu ne ko ñun nangu nañ mu ne yonent bi daal di woote ne nañ ko indil benn ndab bu def ndox lan la yonent di wax fa xasala yadayhi wa wajhahu fii mu jël ñaari loxoom yi raxas ko ci biir ndab li sëlmu ci ndab li wa majja fiihi mu yàbbi ci ndab li yàbbi ci biir ndox mi lu mu ca teg summa qaala ashriba summa qaala wa afriga ala wujuhikuma wa nuxurikuma wa abshira mu ne naan leen ci xoolal de ndab loo xam ne yonentu da caa raxas ñaari loxo sëlmu ca gàllax ndiku yàbbi ca ba pare jox leen ne leen naan leen ko wa afriga ala wujuhikuma te bu ngeen naanee ba pare na ngeen ko def ci seen kanam wa nuxurikuma ak ci seeni put wa abshira te ngeen bég

daf ne leen ashriba ishraba minhu wa afriga ala wujuhikuma wa nuxurikuma wa abshira mu ne leen naan leen ci bu ngeen naanee ba pare te ngeen sotti ci seen ñaari xarkanam ak seeni put te ngeen bég léegi nee na sayidna abu musa la shaari ak sayidna bilal radiallahu anhuma ñu daal di jël ndab la ñu def li leen yonent bi wax maanaam ñu naan ca ndox mooma nga xam ne yonent bi da caa raxas ñaari loxoom sël mucc yàbbi gàllandiku yàbbi ci bañ naanee ba noppi mu ne fa naadat ummu salamata min waraa sitri an afdala li ummikuma fa afdala laha minhu taifata mu ne soxna umu salamata yaayu soxna si yonent bi sallallahu alayhi sallam di yaayu xeet wi booba mu ngi ci biir xayma booba jigéen ñi dañ leen di defal mbañ mbañ gàcce mooy daal benn miir walla benn barrage bu dox seen diggante ak góor ñi ba jigéen góor dana dugg ba génn te du gis jigéen yi ci kër gi ba tey loolu mooy dëkkiinu sunna buñ ko mënoon di def loolu moo gënoon appartement góor ni ak appartement jigéen ñi dafa war a beroonte soxna Umu nag daal di woote ca gannaaw desalal leen seen yaay ne ne comme moom soxna su yonent bi la dégg nga soxnaam yi moom yonent bi yaayi jullit ñi lañ mu ne leen desalal leen seen yaay nee na ñu desalal ci soxna ummu salamata moom it mu jël barkeelu ak ah, xoolal lan moo gën a rëy barkeelu gii nga xam ne Seydina Bilal ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari ñoo ko def ci ndox moo xam ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raxas loxoom sëlmu ca galaxndiku yàbbi ca ñu naan ca raay ci seen kanam raay ci seen baat ba noppi soxna si bi nga xam ne soxnaam la ba déggee loolu mu ne desalal leen ma ci ñu jox ko ca des ba moom it mu barkeelu ci te hadis boobu imaamul Buxaari yi génne na ko ci kitaabul magazi ci razootu taif boo demee ci saxiixil Buxaari yi di fa fekk hadis boobu boo demee ci muslim génne na ko ci kitaabu fadaili sahaba ci buntu fadailu abi moussa la shaari nga gis ne kon xadisa ngoogu boo xam ne tegtale na ne sahaaba yi daanañu barkeelu ci desu yonentu bi euh, imaamu nawawi ci sharxa muslim دابني حديث بي وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة رضي الله عنهم من حديث بينك نجي لفين نجي تلونيال أبي موسى الأشعري أك سيدنا بلال الحبشي أك سيدتنا أم سلمة رضي الله عنهم وفيه استحباب البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه mu ne di moom bu moom imaamu Nawawi mu ne dinañ jàng ci xadis bi ne sopp nañu nit di bégal nit di ko wax lu koy bégal jànge nañ ci xadis bi ne lu ñuy barkeeloo sopp nañu ñu di ci raj-rajloo di ci buuxante ku nekk di njëkkante jox ma ci jox ma ci ka ko yorit sopp nañu nga ne ko may ma ci sopp nañu it nga bokk yow it yow mi ko amit nga xajal ci nit ñi ba ñu mën cee jot kon xadisa googu boo xam ne rek doyoon na ci euh, dégg nga euh, xadis buy tegtale ne barkeelu lu wér la ci yonent bi ak ndesam te saxaaba yi dañ ko doon def bii barkeelu sax moom faf nekkut ne ñoom saxaaba yi yonentoo desal ñu jël mais yonentoo def ba pare jox leen kon loolu day wane ne sax barkeelu luñ digle la saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu barkeelu ci tuflitu yonent bi aw lor wu jóge ci daana ñu barkeelu ci desitu njàppam ñu barkeelu ci kawaram daana ñu barkeelu ci ndab loo xam ne moom yonent bi da cee naan waaye daanañ sax barkeelu ci ndab loo xam ne dañu naan lii de yonent bi moo ko moomoon rek ñu jël ci barkeelu bu dee barkeelu ci tuflitam mbaa ci aw loram ba tey boo demee ci saxiixul buxaari ci qissay sulxul xudaybiya bi ma njëkkoon a junju sànq wax na fa ne annahu kaana ida tanaxama alayhi alsalatu wassalaamu axada alsaxaabatu nuxaamatahu wa dalakuu biha wujuhahum wa ajsaadahum wa huwa yanzuru ilayhim wa ida tawadda kaadu yaqtatiluuna ala waduihi kooku mu ngi ci saxiix al-Buxaari ci xadis bu gudd mooy xadisu deux mille mooy xadisu numéro deux mille sept cent trente et un ci saxiix al-Buxaari mu ne yonent bi kaana ida tanaxama nekkoon na bu xaaxtandikoo aw tuflit alayhi salaatu wasalaam axada saxaabatu nuxaamatahu sahaba ya dañuy jël tuflitam wa tuflit wa wa dal wa dalaku biha wujowum ñu bomb ak seen kanam ñu jël tuflit wa bomb ko ci seen kanam barkelu gënnaare li aw tuflit waji sadahum ak seen yaram wa huwa yanzuru ilayhim ka fek yonento ngi len di xol yonento ngi len di gis ñukoy def ba pare mu noppi te yonent bi lepp lu mu noppi rek loola lu baax la ndax ku war a digle wala tere bu noppee ci mbir terewu ko day tegtale ne mbir mooma lu baax la loolu mu ngi bokk ci li ñu tuddee al ci xeetu sunna yi la bokk mu ne it bu yonent bi jàppee dañuy xaw a reyante ci desitu njàppam loolu mu ngi ci sahihil Buxaari jël si waatal ci sayxil buxaari ci beneen buntu ci baabu xaatimi nubuwa jële nañ ci saadu jële nañ ci saayid bun yazid mu ne zahabat bi xaalati ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallahi inna bna uxti waqaa dégg nga fa masaxa rasi wa daa li bilbarakati wa tawaddaa fa sharibtu min waduihi ba tey xadis bu gudd la mu ne sama tànta yóbbu na ma ci yonent bi mu ne yow yonentub yàlla bi sama doomi rakk ji kat dégg nga dafa am lu ko dal mu ne yonent sama bopp bi ñaanal ma barke ba noppi mu jàpp ma naan ca desitu njàpp wa kooku beneen xadis la ba tey boo demee ci baabu sifati nabii imaamul buxaari génne na fa xadis jële ko ci abi juhayfata wahab bun abdullahi suwaayi wax na ci xadis ba ne wa qaama annaasu fa jacaluu yaxuduuna yadayhi fa yamsaxuuna bihima wujuhahum mu ne nit ñi ca jeexital ca catu xadis ba mu ne nit ñi dañoo jóg tàmbali jàpp loxob yonentu bi di jàpp ñaari loxo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di jël loxo yonentu bi di ko raay ci seen kanam maanaam yonentu bàyyee leen loxoom yi di jàpp ci loxo yonentu bi jël tenqam yi di ko teg ci seen kanam yi maanaa ñu mel ni ñuy fóon loxo bi bi bay jël loxo bi di ko teg ci seen kanam yi di ko raayoo qaala fa axadtu bi yadihi فوضعتها على وجهي من يعني مريتم من أبو جحيفة ما جاب لخب ينمتو صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي ما تك لخب بجسم كنم فإذا هي أبرد من الثلج ما بما تك تنقب ينمتو بجسم كنم ما فك كمو جنسيد غلاس وأطيب رائحة من المسك تمو جنتي خط كي جتو مسك بارفوم مسك loxo loxob yonent bi moo ko gën a xeeñ mais yàpp tenk bi moo gën a moo gën a sedd galaas sallallahu alayhi wa sallam kooku waaw léegi loxo boobu nit ñi jëloon di ko raay ci seen kanam yi pour lan ko ci doon raay waaw léegi ndax kawar gi bokkul ci jëmmam jooju la ne loxo ba nekkul ci kawar ga aywa xadiisa ngoogu ba tey boo xam ne imaamul buxaari moo ko génne ci baabu sifati nabi ci abi juhayfa moomule mu ne dufiatu ila nabii sallallahu alayhi wa sallam wa bil aftahi fi qubbatin kaana bil haajirati mu ne indi nañ ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci abtah ci uh, xuri màkka yi mu nekk ci benn qubba ci njolloor fa xaraja bilaalun fa naada bi solaati summa daxala mu ne bilaal dal di génn oo nit ñi ci julli maanaam dal di nodd après mu dugg fa axraja fadla wudui rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wudui rasul mu dal di génne ndesiitu njàppum yonent bi fa waqaa annaasu alayhi yaaxuduuna minhu mu ne nit ñi dal di tabbi di jël ca ndesit ma kenn ku nekk di jël ca la yonentu ba desaloon ca njàpp ma di ci barkeel kooku it mu ngi ci saxiixul Buxaari mu ne daañ daan dajale sax ndox mi nga xam ne yonent bi jàppe na ci ñu def ko ci ndab di ko barkeeloo ngir ne laal na jëmmam di tedd ci boobu xadiis imaamul Buxaari génn na ko ci kitaabul wudu ci baabu istimaali fadli wadu innaas imaamul buxaari génnewaat na ci kitaabul libaas ci baabu alqubatul xamra min adami mu ne abi juhayfa nee na ataytu nabiya wa huwa fi qubatin xamraa min adamin dikk naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa fekk ko mu ngi ci bu xonq boo xam ne ñu ngi ko ràbbe axada wadu an nabii sallallahu alayhi wa sallam ma gis bilaal mu jël desitu njàpp yonent bi gis nga nag wudu ak wadu du benn ci luxa al wudu mooy jëmmi njàpp mi al wadu mooy ndox mi nga xam ne ci nga doon jàppe wala desitu njàpp moo tax wadu dégg nga desitu njàppum yonent bi wannaasu yabtari yab yaqtadiruuna alwadua nit ña di njëkkante desitu njàppum yonent bi ndox ma fa man asaaba minhu shay'an tamassaxa bihi mu ne képp koo xam ne dara laal na la ci nga dal di koy raayoo déglul bu baax de wa man lam yusib minhu shay'an képp koo xam ne nag dara laalu la ci axada min balali yadi saaxibihi mu daal raay mu daal di jël ca tooy tooyu loxo ka ko jege maanaam ku am ca des wa day jël raayoo ko ku ko amut bu fekkente ni am na meneen menn mbokkam ci saxaaba yi loxoom tooy na ca ca ca des wa mu raay ca tooy tooyu loxo ko ka raay ci yaram lii itam xadis la boo xam ne mm, dégg nga euh, leer na loolu yooyu yëpp ay ahadis la yu leer baytul qasid mooy saxaaba yi naka lañ daan barkeeloo ci kawaru yonent bi te daanaka nag kawar gi sax moo mooy wax ji danaa itam nekkul ne damay defendre ne kawar gi ñu wax ni mu ngi ci kaamil bi dëgg la mu ngi ci ak nekku ci kawaru yonent bi la ak du kawaru yonent bi man du loolu lay défendre man li may defendre mooy ku wax ne kawaru yonent bi amul njëriñ ku wax ne kawaru yonent bi mënta faj dara di tuutal lu bàyyi ko ci yonent bi ak di wet di barkeelu kooku laay waxal mu ne wér na ci xadis buñ jëlee ci Seydina Anas ibnu Malik xadis boo xam ne imaam muslim moo ko solo ci saxiixu muslim mu ne raaytu annabi raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل رواه مسلم سيدنا أنس من جسنا ينتبه دي واتو واتكب كوات وات واتكب بوبنا xaafis ibnu xajar wax na ci fatxul baari ni dañoo uute ci aw turam mu ne waaye li wér mu ngi tudd maamar bun abdullah am na ñu ne mu ngi tuddoon xiraash bun umayya dégg nga ak lu mën a xew xiraash bun umayya wat na ko wala xuraash dégg nga ca xuday moo ko watoon beneen wat watkatam bi nag muy maamar bun abdullah mo dan wat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bi muy wat yonent bi sahaba yam ko wër bëgguñu ben kawar tabbi ludul ci loxo kenn ci ñoom manana kawar gi bayiko ci bop bi yonent bi duñ nangum laal suuf kawar bu kat bi wat rek am ko ko jël pour la pour barké hadis bobu sahih muslim mu nga fa boo demee it ci sahih al-Bukhari mu jële ci sayidna anas ibnu malikin radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamma xalaqa ra'sahu kaana abu talxata awala man axada min chaari mu ne yonentu ba mu watee boppam ba abu talxata moo njëkk a jël ci kawarug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na téere bu ñuy wax masnadu abi waana téere bu wër la ci téere xadis yi wax na ci saxiixam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa xalaqa ra'sahu dafa digal watkat bi mu wat boppam wa dafa ila abi talxata ashiqa al aymana mu ne wàllu ndeyjoor gi kawar gi ci bàyyikoo yépp yonent bi jël jël naaxu kawar ba jox ko abi talxa al ansaari dégg nga summa xalaqa achiqa al axara fa amarahu an yaqsimahu bayna annaasi bi mu watee nag wàllu càmmoñ gi ci boppam bu tedd bi sallallahu alayhi wa mu daldi ne abu talha léegi nag kawar googu seddale ko nit ñi léegi lan moo tax kawar gi waxul ne nañ ko suul mais nañ ko ñi pour lan ñu di ko barkeeloo xadis boobu imaamul buxaari kii abu uwaanata génne na ko muslim génne na ko ci jële ko ci ibnu uyayna dégg nga ci jamonoy aj loolu wat googu mu ngi amoon ci jamonoy aj nee na sax ma ne ko aqsimhu bayna naasi léegi loolu leer na ba tey jii dikk na ci minhaaju nawawi mu ne yonent bi bi mu ñëwee minen ci xajjatul wadaa mooy aj ji mu jaaj ba ñëw jamra daa continuer di labbayka wa ba sànni jamra ba mu ñëwee ci dalam ci minan mu daal di loj hadiyoom mu ne watkat bi kaay nga wat mu ne ko waaye watal njëkkal a wat wàllu ndeyjoor gi ndekete kon wat dafa am nuñ koy jaare booy wat da ngay njëkk a wat wàllu ndeyjoor gi mu daal di summa jaala yutihi naas mu daal di jël nag kawar ga di ko jox nit ñi leen ko seddale moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaalid bunul walid jàmbaar ju mag jooju ci lislaam moom bi nga xamante ne ni ñu ngi séddale kawar yooyu kawar gi féete ci wàllu jë muy naasiya muy ceq kawar googu moom ci la daje woon xam nga ku ne sédd nañ la dara kawar gi tolloog kawaru jëhu yonent bi Xaalid bunul Walid loolu la ci amoon boo demee ci chifa bu Qaadi Iyaad muy téere bu siiw ci siira mu ne yonent bi amoon na ay kawaram yu nekkoon ci mbaxanam xaalit bunul walid falam yashhad biha qitaalan illa ruziqa nasr mu ne xaalid bun walid moo tax mbaxanaam moomu mosu koo sol ci xare lu dut ne mooy gañe ci barkeb lan kawar yonent bi bu nekk ci mbaxanam la ba tey imaamul buxaari génne na ci saxiixam ci kitaabul woobu mu ne ibnu sirin wax na ne wax naa ubayda ne ko indana min shaari nabii sal allahu alayhi wa sallam asabnaahu min qibali anas aw min qibali ahli anas ñun de amee nañ fi kawarug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko jële ci anas mbaa ñu ngi ko jële ci waa kër anas mi doon xaadimu rasul ki daan liggéeyal yonent bi mu ne ubayda ne ko la an takuna indi shaaratun minhu ahabu ilayya min addunia wa ma fiha mu ne ko ma am benn kawar rek bu bàyyi ko ci yonent bi moo ma gënal àdduna ak li ci biiram benn kawar rek bu bàyyi koo ci yonent bi moo ma gënal àdduna ak li ci biiram kooku day du wax mukk ne kawaru yonent bi amul njëriñ wala amul solo بني في رواية إسماعيل دفن أحب إلي من كل صفراء وبيضاء دفن كور يونت بي موما غن لب لو جيل اك لب لو ويخ لو جيل موي لو زون مونكي جوبلو ورس لو ويخ مونكي جوبلو خالص موما غن خالص موما غن ورس موم كور يونت صلى الله عليه وسلم مدخ كرا خري يمامتا mbaxanam bu bunul Walid moomu nga xam ne kawarug yonent bi da caa nekkoon bi mu rotee ngir kërti kërti xare bi dafa daw di toppiwaat mbaxanam yi ba jëlaat ko lenn ci saxaaba yi booba xamuñu woon lan moo ne ci mbaxanam yi ñu xaw a daal naqarlu Xaalid li mu def ak ni mu duggewaat ci biir yéppar yi buñ ko farayoon dégg nga ak moom ni mu doone général ak doon yaakaari saxaaba yi di jàmbaar ju mag xaalid ne leen inni lam afal dalika li qiimati l suwati defuma loolu ngir valeur bi mbaxana mi am lakin karihtu an taqaa bi aydi l mushrikina wa fiha min shaari nabii sallallahu wa sallam mu ne waaye damaa bañ mbaxana mi tabbi ci loxoy bokkaalekat yàlla yi fekk kawarug yonentu yàlla muhammad mu nga ca biir gis nga kon ñooñu li ñu faradu anhu wa asnaw alayhi mu ne ba loolu amee sahaaba yépp dañoo gërëm dégg nga euh, xaalid bunul walid ba pare tagg ko lii boo demee ci umdatul qaari da nga fa fekk loolu chara la ci charaay buxaari yi beneen xadis a ngi nii bu yéeme boo xam ne nag sax faf mu ngi ci saxiixul Buxaari ci kitaabul libaas ñu jële ko ci Ousmane bun Abdullah bun Mawhib mawla Ali Talha mu ne arsalani ahli ila ummi salamata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sama ñoñ sama waa kër dañ maa yónni ci ummu salamata soxna si yonent bi bi qadaxin min maa in dégg nga ci ndabal ndox min fiddati ndabal xaalis fiihi chaarun min chaari nabii sallallahu alayhi wa sallam fekk na biir ndab loolu ay kawar yonent bi moo ca ne wa kaana ida asaaba al insaana aynun aw cheyun baasa ilayha mixdabahu fa atlaatu fi ljulduli fa raaytu shaaraatin xumran mu ne bu fekkonte ne nit cat daf koo jàpp mbaa dara dégg de day yónnee ci soxna ummu salamata ndabam loolu nee na bi ma demee ma yër biir ndab biir biir lu mel ni butéel la ma gis ci ay kawar yu xonq maanaam léegi xoolal xadis boobu naka la naka la naka la naka la tegtalee ne ñoom saxaaba daanañu sax dégg nga boo ci fatxul baari bu uh, uh, imaam uh, nuñ tuddati imaam ibnu xajar dafay wax ne an wal muraadu annahu kaana man ishtaka liñ ci namm mooy ne képp koo xam ne danga doon jàmbat dara arsala inaan ila ummi salamata yónnee ndab ci soxna ummu salamata soxna si bi foto tajcalu fiihi tilka shaaraati wa taxsiluha fiihi wa tuciiduhu fa yashrabuhu saaxibu linaai aw yaxtasila bihi biha fa taxsalu fa taxsulu lahu barakatuha mu ne ku doon jàmbat dara rek da ngay yónnee benn ndab ci soxna ummu bu boobaa mu def ca kawar yooya dégg nga daldi ci sottim ndox delloowaat kawar yi ci palaasam bu boobaa ndox ma boroom ndab la bu demee mu naan ndox mooma mbaa mu sangoo ko sàkku ci di ci faju ak di sàkku barke waaw léegi lii na lan moo ko uutalee xooj kawar naan ban tey bu wéree ne kawaru yonent bi la boo ko xoojee naan bokkaale woo yàlla wala bu dee ku xooj kawarub yonent bi dégg nga naan ko bokkaale nga yàlla kon bokkaale gi saxaaba yi mu ngi ci buxaar yi te ci fatxul baari sharaba ibnu xajar nee na istishfaan biha dañ daan fajoo ca kawar yooyee boo demee ci xustallaani itam eh, wax na lu deme noonu loolu moo doon baaxu saxaaba yi ak ñi leen topp waaye boo demee ci saxiixay ni jëlee nañ ci saïd bunul musayab mu ne aba ayuba al dafa jël ci kawari sikkimu yonent bi dara yonent ne ko laa yusibuka suu ya aba ayub lu aay dootu la dalati mukk yow abu ayub comme yaa ngi yore sama kawar yu bàyyi ko sama sikki saabitul bannaani nee na anas ibnu malik nee na ma bi mu demee ba dara desul lu dul boppam mu ngi wuy ji boroomam dane ma haadihi shaaratun min shaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadaaha taxta lisaani dana ko lii de ak kawar la ci kawar yonent bi teg ko ci sama ron làmmeñ bu ma faatoo jëlal kawar bi bu ma faatoo nga teg ko ci sama suuf làmmeñ nga suulaale ma qaala fa wadaatuha taxta lisaanihi wa hiya taxta lisaanihi mu ne bi ma jël kawar ba def ko ni mu ko waxoon ma yëkkati làmmeñam bi teg kawar yonent bi ci suuf bañ koy suul ñu ko kawar boobu kooku moo ko def dégg nga mu ne soxna ummu suleymin daf daan lalal yonent bi sallallahu alayhi benn ber bu ñu wulli ñu koy wax nitoxu ci la daan endal bëccëg bu yonent bi nelawee nee na ummu suleymin dafay jël ci ñàkku yonent bi ak di jël ci kawaru yonent bi di ko boole ci benn butéel gannaaw gi am na xeeti gëtt guñ daan wax sukk xeeti façon parfum la mu ne day jël ñaq woowa ak kawar yonentu booba dal di koy booleeg parfum booba nee na bi anas ibnu malik demee ba xam ne day faatu mu ne xeeti parfum boobu nga xam ne dañ ci daan tuur ñaq yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di ci defaale ay kawar yonent bi dégg nga gëtt giñ koy tey ci yaramam xam nga néew buñ ko sangee ba pare di ko sàng dañ ciy defaale parfum nañ ca boole loola ngir lan ñàkku yonent bu sallallahu alayhi ak euh, ndox moo xam ne kawaram gi tooyal na ko dégg nga na ko nalaal yaramam ñu suulaale gannaaw loolu tegtale na itam ne saxaaba yi dañ dañ dañ daan barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mbëggeel guñ ko bëgg loolu yëpp ay ay ay ay ay ahadis la waaye sax imaam ahmad ibnu hanbal ñi nga xam ne gars yi ñu ngi ko tudde imaamu ahli sunna imaam ahmad radiallahu anhu amoon na ñetti kawar yu bàyyi ko ci yaramu yonent bi mu ne bés bu génnee àdduna nañ jël benn bi def ko ci benn bëtam bi ñu jël beneen kawar bi def ko ci beneen bëtam bi ñu jël beneen kawar bi def ko ci gémmiñam ngir lan tabarrukan bi athaarihi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ngi ko doon def ngir barkeeloo ko ci jeexitali yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga ne kawarug yonent bi barkeeloo ko du yëfi jaahil barkeeloo kawarug yonent bi du shirk billah bu wéree ne kawaram la waaw ma ne sahaaba yi ridwanullahi alayhim yemuñu woon sax ci barkeelu ci kawaru yonent bi rek ak desu njàppam ak tuflitam waaye lu cëram yi laaloon sax dañ ko daan barkeeloo lu mu laal rek bàyyi boo demee ci ummu saabit muy kabshata bintu saabit di mbokkum xasaan bun saabit mi ñu xam من دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من ينمت صلى الله عليه وسلم دفنه سمكر من كبشة بنت ثابت مدال دي fekk benn jirba mooy mbuusi naar yooyu nga xam ne dañ daan fulli yàpp wi rek mbuus mi des ñu takk ñeenti tànk yi ak baat bi di ci def ndox loolu la ñuy wax jirba muy mbuusum ndox mbuusum der ngir seddaay ba mu ne mu fekk ñu ngi ko wekk mu ñëw taxaw moom yonent bi naan ca buntub girba ba maanaam fa ñuy naane yonent bi daal di naane foofa waaye bi muy naan dafa taxaw nee na ma jóg dem ca gémmiñu girba ba ma daal di koy dagg fii yonent bi teg gémmiñam gi ma daal di ne ko tàppi daggu boo demee ci riyaadu saalihin imaamu nawawi daf ne wa innama qataatha li taxfada mawdia fami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tatabaraka bihi mu dagg fa yonent bi tegoon gémmiñam gu tedd ga naan ngir mu sàmm bërëbu gémmiñu yonentu bi ak di barkeeloo foo xam ne du teg na fa gémmiñam mu ñoŋal ko du yàqu buñ toppee hadis yi ci loolu mën nañu fee wax bu bët set ndax yu bëree bëri la dinaa leen rek delloo ci yéen gëstukat yi ci benn téere boo xam ne al allaama al muhaqiq al muarrix muhammad tahir bun abdul qadir al kurdi al makki kenn la woon ci waa boroom xam-xam yi màkkatal mukarrama mu ngi tudde téere bi tabarruku saxaabati bi aathaari rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa bayaani fadlihi al man téere boobu maa ko woon màkkatal mukarrama téere boobu képp koo xam ne dellu nga ci di nga fekk lu bari ci ni saxaaba yi daan barkeeloo ci jeexiiti yonent bi lu bàyyi ko ci moom muy ay mbubbam muy ay weexam mu di ay kawaram mu di dégg nga desiti ndoxam muy tuflitam muy ñaqam kon bu ñu kenn xeebal barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, bu ko defee kon yal nañ yàlla may ñu bëgg yonentu bi bu wér sunu xol yi ñu topp sunnaam waaye itam ñu fonk ko màggal ko ba lépp loo xam ne jokk na ci moom rek ñu daal di koy bëgg daal di koy fonk daal di koy warmaal